Tuubaa bu yeyoo warmaal la warmaal ko nag mu ngi tàmbalee ci jéem a sàmm li nga xam ne moo taxoon ñu sos ko li nu xam moo dina sëñ bu mag bi bi muy sos dëkk bi moo waxal boppam ne li tax mu sos ko mooy jaamu yàlla rek te jaare ko ci sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa ànd koog nag ña nga xam ne euh, ña nga nekkoon ak moom mu leen di yar kon loolu moo tax mu sos dëkk bi Tuubaa nag mayewu ko sarxewu ko dafay yéenoon naka jekk muy dëkk boo xam ne dafay nekk dëkkub lislaam boo xam ne dañ fi dund diine di ko fi dundal di fi jaamu yàlla jaamu yàlla gu teg ci sunna nekk dëkk boo xam ne yàlla da koy barkeel ñi fi dëkkit am sécurité am itam lépp luy yombal seenu dund ci wàllug adduna man fee nekk ci jàmm di jàmm yàlla mucc seytaane ak ndog yeeg gàllankoor yi gàllankoor yëpp loolu la ko sance woon muy dëkk boo xam ne bi ñu ko sance yéen wu ci lenn lu may ngir jàmm yàlla dong dong dong dong bi ko sosee itam moo def ak xasida gu nu xam nun ñëpp muy matlabul fawzayn di ci ñaan yàlla lépp luy jàppandalal nit ñi seenu dund ci kaw suuf ak seenu texe bu àllaaxira moo tax mu tudd téere bi tudde téere bi noonu sàkku yaari texe yi muy texe ak àddina ak bu àllaaxira ñaan ci lépp loo xam ne kon day jàppandalal ñaari ya, texe yooyu yi iya. kon warmal dëkk bi manes na koo tënk rek ci sàmmal ki ko sancoon sàmmal ko bëgg-bëggam bi mu fi bëggoon mooy kon ku fi nekk mu nekke fi nu dëppoo ak ni yàlla bëggee ab julit nekke ne sanc ngeen jaamu yàlla dong dong dong mu Sëñ Tuubaa ko njëkk a def te dar salam Salaam dama leen sanc ngir jaamu yàlla dong amul leneen mu yéenoo nag jekk muy daara rek joo xam ne nit ki defee mën a xame la tax yàlla bind ko man koo jaamu ci an an bu sell la xay na daara joo xam ne dem na ba yaatu ba lu ñu dugg ci waaye Sëñ Tuubaa rek la ci yéene woon mu gënal ko fépp nag bëgg ko lool ba bi mu nekkee njaar mi sax masaan dégg baatu Tuubaa da ngay gis mu muñ xol bi day sedd ku masaan jóge Tuubaa danga da ngay gis ne bu la gisee xar kanam day belli lool ci gis ngam la gis damay faral di wax ne boroom kër boroom kër bu fekkee fat na la ci këram te kër gi am lu mu fa bëgg am lu mu fa bëggut rus ko rekk rus ko rekk war naa tax ba la muy bëgg nga di ca nekk la mu bëggut nga di ko moytu bu dutoon leneen sax waaye rus ko rek foog naa ne boroom kër gu nekk nag lu néew néew war naa mën a am loolu ci këram te Tuubaa nag dañ koy faral di waxe kër la kër la mooy sëñ bi bi mu fiy ñëw ay rabi àll ñoo fi nekkoon mu gor ko ànd ko ay taalibeem ñu goral ko ko mu nekk fi am lu ko fi tax a nekk itam waaye bi ñu demee ba jëmmi jamono it ñu ko wuutu yoonal nañ moomeel googee ba wutal ko ay kayit lii tegtal ne mayewu ko ko nag mooy ñi ko gën a jege bi nga xam ne wàcc wàcce na Cheikh Mahamadul Moustapha ak Cheikh Mahamadul Fadil ak sëñ Masamba sëñ Masamba ak sëñ Balla bajaan ak euh, sëñ Masamba Kanni Bousso ak itam euh, sëñ Maxtaar Mbay ni bim len yewé ñom ñoom la yewendoo ci benn bis sëñ ma bu si ci la bok ne len dem len Touba way su ngeen demé sama dëkk bu leen bu leen fa dëkk dinañ la fa wayil na ngeen ma fa bayil sama dëkk ba su ngeen demé ne kenn ko nek dam ba dandu ko sanc sanc sa sanc bopp moo xam da fa ngay nek sa yu ma ci Touba Touba ba tax sama jumaaja su ma ñibbisee ba tabax sama jumaaja ngeen di bayiko fofé di julli ci àjjuma di dellu lolé ndigalon motax mi ñëwé bi sëñ Fallou sanc Ndindi sam Massamba Mbacké ci daru Karim sëñ Moroqi Bousso sanc Tàkke eh, sëñ Balla Badiane sanc Kër Kàbbu safla Mbadianeen Mbadianeen fu ñuy wax Mbadianeen eh, ci ci ci penku Tuubaa la sëñ mu kumbe kebe ci la woon moo sanc Kër Kàbbu sëñ Massamba Kanni Bousso ci Daaru khadim nii la ñu defe kon ndigal si Tuubaa ñëw sanc war ko gannaaw ñu ko gën a jagal la lay wax ne na ngeen wax bàyyi sama dëkk kon la muy traité mooy mayu kenn sarax sarax ko naan dañoo am foncier loolu lépp day wane ne kon day dëkk boo xam ne àtteb kër la yor kër na ku ca nekk lu néew néew néew rus kër gi rek war naa tax bala muy bëgg la muy bañ itam ñu koy bañ le rawatina nag boroom kër boo xam ne li muy bëgg ci kër gi di la ko digal lépp sa njariñul bopp la yow li muy bañ di la ko tere lépp itam def ga sa lor la kon dam lay digal da lay xëccal njariñ dam lay tere itam dalay jañal lor foog naa ku am xel du nekk sax mu di ko digal walla mu di ko tere bu xasee xam njariñam rek da cee nekk bu xasee xam lu koy lor rek da koy moytu wax ne daana wax yi ne Tuubaa day li tax ma gën mu ci dëkk yi mooy day barab boo xam ne barke ba fa nekk ak ngëneel la tax na gaayu yàlla yépp ba dañ ko yàlla wane dañ ko bëgg xew ko ñépp bëgg ku ne bëgg ko moom nee bi bi ñu ko bëgg bari taman ma bokk ca nen sun bon daf noo dajale ñun ñiko bëgg ñëpp teewal tuba laaj tuba ne ko ana ñi kan nga ci bëgg mu mom la neen tuba tan ma kon tan gi ma tan nak ma gënal ko ci gaay yu baax yi motax ma di mu gënal ba ci mbolim dëkk yi waye bu démé bañ koy diggale ak téré it ta yéxati nak bu démé xeyna ba saggan ba di def luñ koy tere for war daal di bayyi nak ndax nima ko waxé légui bàyyi ngir xam ne dañ koy tere looram la ki koy tere itam mooy boroom kër gi kon lu ne ne war na koo rus ba euh, li naan sagal ko sax bokk <laughs> ba li muy tere ñu bàyyi ko kon wërta nekk nag bañ cee teg ab yar di ca la di ca la ab yar te nag àgg na fa fi mu ne ci dëkk bi sëñ bu mag bi dafa digle woon tere dafa waxoon lim bëgg ci dëkk bi ak lim fi bëggut dafa ñaanoon yàlla lim fi bëgg mu defal ko ko fi ñaan ko itam mu fegal dëkk bi lim fi bëggut ñi ñëw ginnaawam wuutu ko di feddli loola ba jëmmi jamono sax ñu teg ci ab yar jamono si Abdul Ahad nga xam na li ñuy tere du ñam rek ci di ko tere ak di laabiire rek waaye ku ko def sax nag dañuy teg ci kawam ab yar Touba nag barab la boo xam ne eh, tur wi Touba buñ koy fiiri texe lañ koy tekkee mooy mooy lu dal lu teey lu ànd ak jàmm lu ànd ak xéewal lu ànd ak barke waaye wax ne Touba it garab la ci aljanna am na garab gu nekk ci aljanna gu tudd Touba mooy garab ga fa gën a nga xam ne aljanna yëpp aljanna ju mën a doon anna bankas bayi ko jagara go tim aljana joje ndi ko nga ngana ko garu lago maga ma ci aljana kon gogo moy toba. Lo nak ma ñaan ko ci dekk bi so delo ci khasidam gi tuddu matlabul fawzaini mag ñi da ko tuddee làkkab touba dañoo man man nga wax ne mal fawzayni moy moy moy procès de société manal lepp lo xamne lu ab di aaje wala sëñ bi indi na ko fa waaye da ca da ko def ne ci forme ñaan daf mel koo ñaan yàlla waaye wàcc xali sëñ Tuubaa nag bokk du wàcc xali keneen ndax moom ci boobu daana wax ne li ma wóotale gaay yu baax yi fi jitoon ñoom dañ daan ñaan yàlla yàlla di leen may man nag yàlla dafa may may ba noppi ne ma ñaan ma li ma la may nga xam ne wàcc xalam joo gisee fekk na laataam ko suñ suñ ba fekk na may ko ko ba noppi kon wàcc xale yi nekk yëpp kon de forme ñaan la waye da cee jullu nak procès de société bi nga xamné ci la dëkk bi wara doxé doxe lépp ñaan ko fa lool nak wax dëgg yalla boo amé nit ki wërta nek nag ba yar bi dal ci kawam boobaa nak càggante gi day ëpp lool kon dëkk bi dal lu ñu war mal la war mal ko yit liko ko rek moy kiko ko li taxon mu sos ko ñu diko ko ñu diko ko sàmmal loola mooy mu doon dëkk boo xam ne dëkk bu bu ñuy jaa bu ñuy jaamoo yàlla la dëkk bu jaamu yàlla di yombe la dëkk bu mooy yàlla di jafee la suñ bi noonu la ko ñaane dëkk bu topp yonente bi salaa sallam di yombe dëkk bu topp seytaane di jafee dëkk boobu képp ku bëgg uh, jaamu yàlla bu fi dikkee mu yomb ko dëkk boobu képp ku bëgg a rëcc seytaane bu fi dikkee man koo rëcc dëkk boo xam ne loolu la ci boroom bëgg ku fi nekk day nekk nekkinu dëppoo ak noonu loola mooy warmaal warmaal dëkk bi lay la jiitu mooy na mel ni turandoom wañal wañal ilaahi maskani tooba abad mis lasmiha bi jaayi xayri man abad maa ngi lay ñaan yu sun boom nga defal ma sama dëkk bi Tuuba mu mel ni aw turam mu mel ni aw turandoom ci aljanna waaye nekk itam dëkk boo xam ne ku fi dëkk da ngay jëf-jëfi ku texe dangay jëf-jëfi ku texe di dund dundi ni ku texe tamit di jaamu yàlla gannaaw boo ragale yàlla e, nga teg ko ci sunna mu nekk itam dëkk boo xam ne dëkk xam-xam lay lay doon wajal dëban maskana taallumi wa mawdi al fikrati wa tafahumi wa maskana irshadi wa taalimi wa maskana taswibi wa tafhimi ma ngi ñaan yu sunu boo nga def na sama dëkk bi mu xam-xam dekk bu ñuy xam di difa jànge waye nek dekk bu ñuy bu eh, eh, xalaati xalaat yu am jariñ waye nek itam dekk bu ñuy deg deg lo ay masala wa nek dekk bu ñuy xamle ki xam ba noppi na doon koy xamle na nek dekk bu ñuy jubante ki jubba jubante na nekk dëkk bu ñu formé ki am xalaat yu baax ñu di ko formé defal formation yu baax waaye nekk dëkk bu ñuy déggale ki bëgg a dégg ñu di ko déggal ay ay ay masala. mooy wormaal dëkk bi ñu fi dëkk nag war cee jiitu waaye ku fi ñëw ku nekk itam diir bi mu fiy moom it mu fexe ba tënku ci worma jooju waaye bi ñu fi dëkk buñ ci tënkoo rek ñu leen di fekk si duñ mën a def neneen waaye léeg-léeg safaan bi day am léeg-léeg nit day waaje feneen di ñëw Tuubaa bàyyi xel ne Touba am na lu mu laaj ba mu waaje noona waaye mën naa ñëw ñu muy fekk ci moom fekk leen ci nu wuute ak na waaje moom mooy ñu nekkee nekki noo xam ne dëppoo wut ak war may dëkk bi kon daal foog naa lu nu warati soññante fu nu toll waru noo nekk ban nuy ba nu yëkkati ab yar dina ko jëme waru na gën a sàggan nag far ba yar bi dinu dal ndax li nuy digle sunu njariñ la muy sëñ bu mag bi ak ñi ko fi wutu ba nëgëni li ñuy tere itam sunu lor la foog naa nag kuy ku ñuy digal la koy jariñ di ko tere la koy lor wërta réeroo ak ka koy digal di ko tere loolu daal lan bëggoon a euh, labirante ci wàll gi wàllu gormaal dëkk bi noo ngi jéggulu ñëpp di sant ñëpp wasalaamullahi aleykum wa wa barakaatu salaatu